jógee ci Adji Sarr jaar ci ki nga xam mooy Mame Mbaye Niang léegi nag police yaa ngay porté plainte. waaw wax na dëgg son yi wax na wax na dëgg. man mii sax incha allah naa plainte naa def benn plainte contre yow waaw Ousmane Sonko lu ma def. lu ma def lan moo tax maanaam fu mu jëm Sénégal yi di topp te loolu neexum. loolu la plainte la. daa plainte rek plainte moom loolu la neex rek waaw. naa dóor dóor contre plainte ndax. su ma ah jëm Sénégal topp ah. topp. lu ma si rek ma def ko ci ko su ma am su ma si amul ndam it ma am si tur. ne Assane plainte na Sonko Assane na am si tey plainte boobu moo ko dóor sax mën naa ma dem ba am si ay xéewal. Mhm. waaw. ay xéewal mën nañ ñu ne ma ah Assane ay day yéwén ginnaaw yaa ngi contre carré waa ji yaa ngi daal ci kawam jàppal ci lii am na avocat yi ñoo jàppale ma. kon daal na ko xam ne penante mi ngi ngi koy xaar moom Ousmane Sonko pare naa pour dóor ko benn penante incha daa am sa bëgg rek mooy ay koppar ak tur doo ko ci am ndax wax nga ko ci kaw. waaw loolu si dara du yees ndax par force ne Assane penante Sonko en mi ngi léegi nag kon waa ji ñu ngi koy encouragé si penante boobu mu penante Sonko di ko wax ne na si dem rek ba am nan la ko yoon di may. d'accord alaaji ndax bu yàggee nag mbirum penante duñ ko ñàkkal fayda ñu baal ma ci waxin ñàkkal fayda parce que naa du ñàkk fayda mais ku jóg plainte ku jóg plainte ndax Frédéric mii li ñuy wax bu fekkee Ousmane Sonko moo ko wax est-ce jaroon na ko itamit ndax man tey laa ma sa déggu trop moom Frédéric Nappel mii te xaw ma ko. ah xam nga man de réew mi de wax dëgg fa yàlla lii ñuy def euh, man jàpp naa ne son yi luy ñoom ñoo ngi gën a yokk Sonko doole. parce que acharnement bi nga xamante ni moom la ñuy def ni day tax nit ñi gën na am nit ñi nekkoon ci moom gën a am ci moom nag ak cofeel mhm. maanaam lii ñuy def ñoom dañu war a xoolaat beneen stratégie parce que stratégie man bu boo xamante ni à chaque fois mhm. ma koy def nit ñaa ngi gën a bëgg ki ma koy defal kon war naa xoolaat ni may doxalee mhm. xam nga tey mën nañu wax ne sax kii mu ne bon policier la boo xam ne nee na dañoo tudd turam mais nit ñi du ñu gis ni policier la boo xamante ne bii dañ ne dañoo turam bi ñuy tudd turam ci yan circonstance dañ ko tuddee lan moo taxoon ñu tudd turam. la question lan moo lan la defoon ba tax ñu tudd turam. Mhm. xam nga nit ñi am na ñu bari ñu bokkal nekk ca bërëbu liggéeyukaay ba kenn mhm. moom lu tax Ousmane Sonko cité ko. xam xam loolu waroon nañ ci mën a dellusiwaat pour xam exactement parce que le fait que nit ñi bàyyiwuñu xel sax loolu man bàyyiwuma xel loolu parce que xaw ma exactement tey lan yenn circonstance moo taxoon mu tudd mhm. te loolu boo ko xamul pour nga mën a euh, cité waa ji xam mooy kan dana loolu peut-être Sonko wax na ko te nit ñi mën nañ sax bañ a bàyyi xel ci li nga xam ne moom la wax mhm. léegi moom lan moo taxoon loolu man bëgg naa koo xamante exactement bëgg naa xam bi ma dégg affaire sax dama foogoon mooy policier bi ñu nangoon téléphone am mooy ko Sonko naan ko ñetti weer ak yaa ngi topp hmm. te mu naan jox leen ma sama téléphone kii lan moo taxoon mu tudd turam waaw kii keroog conférence ba euh, xam nga tey bu ñu nee Bassirou na tudd Bassirou Gueye xam ne Bassirou Gueye procureur woon boo xam ne dafa jëloon ay dossier jël ay kii dindi lii am lu roof am lu mu yooyu bas bi mu ñëwee di expliquer moom weddiwut dindi geeg roof gi yooyu. waaw waaw yàlla weddi man moo tax man bi ma nee bas ñëw na pour leeral waaye lan la doon leeral. ok du ko seetal wala luy wéral. comprendre léegi nag kii moom it man bëgg naa xam exactement plainte bi. Mhm. bi ñuy tudd turam lan lañ ci wax. d'accord que xaw ma ko xaw ma wax dëgg fa yàlla lan la woo moom exactement. d' accord fekkee ne am na euh, a mën ko leeral rek hmm? da comme ça mu ne euh, policier kii mu ne ñoom wax na gaayam yi. Mm-hmm. après nee diw tudd muy président wax tur tudd moo wax mu ngi leeral gaay euh, benn kii après suba naa gën a leeral. moo bàyyi. ne diw hmm. waa ji tur waa ji dafa xaw a ñàng quoi. moo après moom dafa am lu mu leeraloon lu mu waxoon. dafa am lu mu leeraloon ni moom la yi doon def. ni kii moo ko sant. waaw loolu la doon wax. waaw yooyu doon expliqué gaa yi quoi gaa yi wax ko Sonko. saa yooyu. ndax nag dana gën a leer incha allah.